neexee dugalal ku la neex mu wax mais du ma tontu kenn damaa nekk si yoon aw ma jot du ma tontu kenn parce que Seydina Mohamed du ma tontu pour lan ban njëriñ la ma nekkuma fi pour guerre ak kenn damaa am doom dama am famille guerre ma ak kenn. non sa famille bi nga njëkk a créé kay mi ngi Sénégal foofu nga war a wax. <laughs> non non million million jàmmoor yi nga lekk ba pare tas waxal ci loolu. xam nga instant bi waaw da nga ma da nga bëgg a wax pour merloo ma pour ma mën a wax. xam nga non merlo non non merloo xam nga ah, ah. xam nga nit dafa jafe. Ah, non non non xam nga déglu ma lu mat si lu ëpp 6 nga feree ko ci lëf. ba pare dafa bi dem bàyyi la dafa ñaaw. astafurlah astafurlah. non rafetul. astafurlah rafetul. Adamo waaw Adamo waaw. boo waxee nii may yàq te nit ñu bari ñu lay seetaan te laa s'il te plaît arrêtel naa am jëkkër suba wax bi na rafet ngir yàlla dama la ko man nga di fu mu nekk xoolal yaa may jëmb nii pour ma xam naa la kooba nga dara safa la. déedéet déedéet déedéet mais la xam naa la. <laughs> naa danga may jëmb nii xam nga ne sama xol bi fii la nekk sama catu baaraam yi boo waxee foofu noonu bëgg nga ma xuus mais du ma wax arrêtel arrêtel. non lekkuma dara. lekkuma dara lekkuma dara rek leen sa bopp. non man <laughs> non non mais Ayo Balde Ayo. instant mm-hmm. bi yaa ngi yaa ngi yaa ngi bolloo sama xol bi. Mm. dangaa fay live bi nga ñëw ñu waxtaan moo gën ci fu ñu waxtaan. comme yow rek ñu waxtaanee ko ci suuf. Eh, <laughs> wuy leen loolu. <laughs> Ah. wuy leen nee na sànq ba tey maa koy doxaan kon xanaa kon Omaro Omaro day dagg sama koy bi. man ki nee na xaw ma ko. nee na ma coupé live bi ñëw ñu waxtaanee ko ci suuf. coupé rek nga waxtaan yaa ngi may doxaan booba léegi nangu rek yaa ngi may doxaan booba léegi. waaye du ngeen wax ak yéen fi nga dëkk ak fi nga dëkk ak fi ma dëkk yaa ko wax te ñëw ok. <laughs> non barki sëriñ Babacar Si non man man man. Adamo doxaankat bu mag nga boo ba léegi yaa ngi may doxaan naan ma yaa fi ne. léegi yaa ngi may doxaan waxal ci loolu li ngay kaa yaa ma ne kaa ma jël wax yaa <laughs> maanaam Ayo Balde li muy wax nii carte gi la bëgg la bëgg a la bëgg a tourné xam nga li ma la gi la bëgg a changé maanaam buggul wax ci li ma koy laaj xam nga li ma may doxantu ba ba léegi waxal ci loolu. non non wax ci li nga xamante si nii moom moo ñor sénégalais yi te sénégalais yi àdduna bi ñoo lay déglu. ñi am sa numéro ñi am sa numéro gis nañ la suba ba léegi ak may dugal di dugal suñu conversation bu ñuy wax a yàgg une heure deux heures ñu ngi wax. waaw yaa ko. waaw léegi doo wax ci doxaan bi nga da nga ne man jabar jaamur laa te bopp léegi ak may doxaan yow na aadamoo ko garaaw nga waxal ci doxaan bi nga garaaw yow ok waxal ci boobu. barki Serigne Babacar Sy man de fi mu doon nii waaw léegi wuy ma Awa Balde léegi bu fekkente ne mënoo wax defal ndànk léegi bu fekkente ne mënoo wax lépp ci li nga xamante ni moom nga xam léegi mën na laa envoyé mën na noo tudd tur tudd suñuy demande bañ a tudd Omaro maanaam jaaree ko ci beneen tur ah waa léegi ñu bañ a tudd yow xam nga turam ngay bañ ko tudd man xam naa loolu léegi ñu bañ a tudd Omaro ñu daal di tudd keneen. Eh, yow da nga am da nga xam dara loo war a wax est ce que mën ngaa wax bu ma la si si fekk si la xaw ma ah man de def may demande ay demande laa yor ay demande laa yor ñi may woo nan arrêté waaye yow maa ngi nekk ci ay affaire ngeen may woo lu ngeen may woowee. <sighs> te ngaa wax ci borom bakkan yi ngir yàlla. kan mooy kooku xanaa yow amoo bakkan. gaa bi gaa yi man damaa sonn barki. dama la laaj na amoo bakkan. lan. yow amoo bakkan. waa léegi waa léegi. xam nga da nga réew na yow amoo bakkan laay laaj na man aw ma bakkan. <laughs> Hein Euh. Ah? <laughs> waxaan si doxaan bi nga may doxaan suba ba léegi. non waxuñu ay doxaan bàyyil bàyyil def la saf. fu mu la li ngay def di meleste xamul yaa ngi laaj oh. question yi. tontu. mooy seen relation yow ak ah, yow ak ah, kii Omaro ñaata temps def. kan mooy kooku am ma benn relation célibataire laa. léegi baa ma laaj la Omaro lan moo tax mu jël ay million yu bari fere ko ci data boo xamante ni da koo takk matagul ñeenti weer bu dem. yow kan ngay dataam yow. ah. ñun ñun jigéen laf lañ koy tuddee. danoo ah. ah, eh, ah, dama laaj yow kan ngay wax. kan wax ku may waxal ni instant dama ne yow. takk na wala takku la. déglu yow mën ngay wax mën ngay wax man mën ngay wax bu ñaaw boobu laa bëgg xam wala. ku may waxal instant bi. Adamo yow réew nga de Adamo mën ngay waxal. non réewu ma waxtaan la. déedéet nga waxtaan sa sa wax koy teg si yoon man yaay laa yow. ah léegi léegi waa léegi léegi nan bàyyi waxu lëf ak waxu data léegi ñu wax ci waxu correct. Mm. Mm-hmm. léegi Omaro nan la mën a jëlee ay millions yu bëri def ko ci jigéen boo xamante si nii matul sax 4 mois mu dem abal ko mu ñàkk ay millions te nga ne yow. du du yow. yow loolu mën nga koy laaj wala ki ngay tudd ngay laaj. kan moo lekk millions yi. danga fekkee fu ma lekkee. millions yi fi ma lekkee man. yi kan lañ ko jox. dama lay laaj na yow fekkee nga man fu ma lekkee man. waaw mais kuy takk danga yóbbu ay waru gar mami nee na mami mami dégg naa ko ci vidéo mu ne moom moo demoon yóbbu waru gar yi. Adamo li ngay wax xaw ci dara. ki may woo na arrêté. bu nga am ku xam dara ci li ngay wax mën nga koo dugal mais li ngay wax nii xaw ma ko. gars yi def nañ wax nañ vingt quatre minutes yoo xamante ni amul benn sens parce que question yi ma koy laaj nangu wu cee tontu di wax ay waxu dof rek. Mm. non man nit waa léegi lan moo tax nangu woo waxu nit. non mais Adama moo laal rek la sa bopp gënoo maa vulgaire maa bëgg nga rek la sa bopp. non da ngaa tàngal sama xel mi ma lay noq de. ma nga torop. nga toog di ba de. baax na coupé live bi def nan. yaa ngi continué doxaan bi moo <laughs> dama lay noq de Ayo Balde dama lay ñuus de barki yàlla dama lay noq yow te bi sax man damaa mer barki Serigne Babacar waaw. waaw léegi euh, leneen mënuma koo laaj ndax parce que ay point laa yor billaahi dama yor ay point yoo xamante ni huit point lay tolool huit yoroo dara boo yoroon di nga génn wax di nga wax huit point maa ngi nii laaj la première laaj waxuma la sa relation yow ak euh, yow ak euh, sa relation yow ak euh, kii ak kii ñaata saa def laajuma la ko bu fekkee dafa am loo war a wax wala loo xam doo ko wax moo gën ci yow léegi lan moo indi seen problème exactement yow ak Omaro ku am problème est-ce naa la ko am gis nga ma ni ma bélee damay xool di ma wax ne man dama am problème xool nga ma bu baax ah? léegi xam nga lan la bu fekkee ne ñi sa gars yi dugg pour seetaan pour ut kaa ñoom seen bopp ñooy toog di ma saaga si internet bi nee na ñu sawete tëddi benn kaa amu fi yow yaa war a wax ngay wax waxu kaa duul noppil laa la wax noppil bul wax tëjal sa gémmiñ waaw noppil laa la wax eh dama ne tëjal ma